mbokk internet bonsoir bienvenue dans votre émission wax Khalat, xalaat Khalat Moi, deuxième demi-finale Ligue des champions bi Lyon avec Bayern Moi, la ñuy waxtaane tey ngeen pronostic Mohamed Telamine Diop nuyu naa comme nous l'avons après euh, la belle victoire du Paris Saint-Germain tey ñuy waxtaane li nga xamante ne euh, demi-finale mhm. entre l'Olympique lyonnais et le Bayern Munich Mhm. occasion pour vous aussi chers internautes de mën débriefer waale li nga xam victoire au Paris Saint-Germain bi euh, face à Leipzig euh, daal di 3 buts à 0 mën ngeen cee wax mais itam euh, mën ngeen de di pronostic li nga de demi-finale au bi occasion aussi de pouvoir gagner un maillot vous avez itam ci li nga xam te vainqueur maillot bi muy vainqueur au maillot Paris Saint-Germain bi Buckingham. ki nga te momo trouvé euh, résultat ou score bi 78 150 74 72 fa ngeen di woote ngir mën a ci émission bi euh, joxe sen pronostic mais itam waxaale ñu démb nan ngeen dundee euh, ki victoire ou Paris Saint-Germain ba mu nekk victoire bo xamante victoire surprise la en fait man hier mhm. j'ai été déçu vraiment du contenu du match je pense qu'on est déception Bob. man ak voilà man ak internet yi ñoo koy ñoo partage compte du match bien sûr parce que je m'attendais à ce que Leipzig Dadi, di. pas pari tuuti mais le début était très élevé quand même voilà au moins dugal benn but je m'attendais pas à ce que euh, Paris Dadi, di ñëw deux buts à zéro rek mu jeexal match bi non autant de buts ci première période bi non je ne m'y attendais pas. En tout cas, dès, dès le début euh, de la rencontre, Disney que Paris Saint-Germain était carrément au-dessus

ça se sentait. Et Justement, l'efficacité des Parisiens. Voilà, je pense que Mom euh, il, est, il a été élu homme du match et mhm. que Wachnako, c'est eux-mêmes qui ont rendu faible cette équipe de Leipzig. Donc, non mhm. c'est en fait, c'était un niveau très élevé pour cette équipe allemande. L'expérience de Di Maria et de Neymar, mhm. donc en Ligue des Champions, avec ki nga xamantene ne moy équipe bi parce que buñu faté né ku ci nek ci mus nga Ligue des champions. Mhm. Di Maria euh, gagné en 2014 avec le Real Madrid Neymar gagné n'ako en 2015 avec le FC Barcelone donc ku ci nek une expérience au niveau am nga expérience ou match yu mag yooyu yu mel ni ay Champions League. Mhm. et carrément ils ont fait déjouer l'équipe euh, allemande ba nga euh, ils étaient vraiment méconnaissables. kenn woon que ni. mais aussi il faut il faut il faut il faut un peu euh, nous relativiser ñaari ñaari parce que boo xoolee Leipzig ki ban équipe la éliminé. Atlético mhm. Madrid bi mu éliminé Atlético Madrid c'est une équipe très défensive donc équipe la boo xamante ni mook Leipzig ñoo bokkoon style de jeu ci match bon non donc euh, tu tu tu tu sentais pas nettement de, dina am na différence entre ñaari équipe parce que ku ci nek da ngay am temps fort nga jëm a mais contre Paris Paris équipe offensive mhm. donc Paris dafa ñëw woné indi ay argument Leipzig mënu ko mënu ko tenir. je pense que Leipzig ñoom ci seen bopp sax am nañ surprise démb par rapport ak euh, pay efficacité bi nga xamante am devant les buts mais aussi manière bi nga xamante moom la doon jouer démb parce que hier le Paris a été euh, plus joueuse plus plus plus plus plus agressif. Mhm. Euh, boole na ay arguments yu bëri yoo xamante peut-être club allemand bi attendre ko woon. Mhm. ci ci Paris Saint-Germain en tout cas Paris moom avec le match bi nga xamante moom la montré wane ni donc euh, euh, qualifié wu déjà en ci li nga te final mais en plus bu eggee le finaliste itam mhm. nekkul équipe boo xamante dafay toog di xaar mhm. même si on sait que ni Paris ne sera pas peut-être mhm. favori la il y avait la pression déjà contre Atlanta il y avait il y avait la pression parce que tu sentais nettement que ne Paris euh, pression mais si nous le opposons parce que Atlanta moom outside outsider bi et que ils étaient favoris et que chaque fois il a fait malédiction bu doon Paris Saint-Germain pour nous dépasser le cap des quarts de finale donc 25 ans après la demi-finale donc ce n'était pas évident maintenant quand nous contre Kinga nga Momo et Leipzig tu sentais que les joueurs étaient plus à l'aise oui ils ont joué décomplexé voilà ils étaient plus à l'aise Neymar a euh, amatul pression la pression bi mu war a équipe bi euh, contre Atlanta nekkatul woon ci ci ci ci ci dimension mhm. et que comme nous ma ko waxee sànq Di Maria faciliter ko et que Mbappé aussi, il, euh, il était dans le 11 de départ et que Mbappé a, Mbappé a 80%, mon équipe. Mhm. Seulement Mbappé a 80%, mon équipe. Donc, je crois que, euh, il n'y avait pas photo entre Paris Saint-Germain et cette équipe de Leipzig. Donc, mhm. euh, concernant le match d'aujourd'hui, entre le Bayern Munich et moyen. Euh, ak ak Olympique Lyonnais donc daje nañu en 2010. 2010 donc daje nañu en 2010 et que euh, tey ni euh, euh Olympique Lyonnais bo xolé parcours ci Ligue des champions bi aussi ay équipe yu mag rek la éliminé. parce que mhm. dafa éliminer Juventus. Mhm. Ah, donc éliminer ki nga xamantene Manchester City pour ñoo dal ci Bayern. Mhm. donc ay amna en face de lui ay équipe yu mag té depuis, depuis le début hein, de cette compétition, un entraîneur euh, Rudy Garcia. mais vous faites que le championnat français, c'est un championnat très tactique et que a un dispositif pour xamné le jouer. Donc bo xolé euh, Lyon nous commencer avec Juventus mom la def avec euh, ah. Manchester City mom lay tégat tay saison 5 3 2 bo xamanteni ni da fay marcher. Mhm. Chaque fois bu ko tégué contre les grandes équipes, ça marche. Donc je crois que tay ni problème majeur bi nga Bayern Lyon indil Bayern c'est son dispositif tactique son 5-3-2 qui a marché contre Manchester City mais aussi qui a marché contre Juventus sauf que le Bayern niveau bi compétition c'est largement au-dessus par rapport ak li ñuy ak yeneen équipe mhm. contre FC Barcelone sur le plan tactique sur le plan physique et technique c'est le militaire Thiago Alcantara gis nañ à chaque fois en fait mon naa Thiago Alcantara le Bayern da fay reposer wu ci ci ci parce que il est c'est un joueur très technique d'ailleurs Liverpool sax piste pour pour pour recruter mhm. et que physiquement aussi Bayern da ngay gis amn'a ben intensité boo xam ne dañ koy indi ci ci ci milieu terrain mhm. euh, foog naa ni maillon faible parce que wax nga ko championnat France nek na ah, champion euh, championnat de xam tactique mais euh, côté physique en fait il euh, y a pas photo entre li nga de la Bayern et de ak li nga la le Lyon di ce et c'est pas la même chose entre les deux championnats bu ñuy le championnat l'Allemagne Allemagne le championnat bu France même si les chances euh, sont sont on peut dire que les chances sont égales mm-hmm. amna lo loo euh ci ci ñaari équipe bi euh, ñu ko parce que ku def parcours ba egsi fini c'est tout à fait normal mais Bayern fi mu mënee ñeneen ni moy que Bayern dafa am ay joueurs yu bari yoo xamante mën nañu et que parfois yow ya, bo boo de di euh tu te dis que ni ok am nañ ken ci ligne allô allô allô oui alaykoum waaw ci Ndiaga job la depuis état dañ ma xaa participer tenir Ndiaga Diop d' ah yow lañuy ñuy déglu Ndiaga lan mooy sa pronostic tay démb bëgg wa tay ah Μαλλιώνε, πως μου και είναι και η Bayern του Ιόμπουνε, μας πάμε και άλλα. Ας τα Bayern μου διάμουν εκεί μου. Iki eh, eh, lim lim andi lim andi tai mau wah tegi ala kana surprise am wa eh, ai bu amul mo wah tegi ala kan bayar na lagi ne mau mau moy ganya mo prema mhm. iti sing ba ci tule pala nang surprise nang man am parce que espoir la mom man am mhm espoir bi ñaata nga waaw mais daal li ma gis daal waaw score bi moom damay damay tiit mu dem ay trois un wala trois sept trois un waaw d'accord Ndiaga waaw ah, ah, di leen jaajëfal baax na jaajëf merci beaucoup mhm. Bayern dóor fi Barcelone 8-2 ñu mu naan mu naan 3-1 pour pour pour Lyon. score yu ndaw yooyu noonu. en tout cas bu FC Barcelone du Lyon. guddi yi ñu toll aussi. Lyon Lyon moo gën FC Barcelone. fu mu ne nii waaw moo ko gën mais FC Barcelone. de ñeme ko rek Diop <laughs> allo. oui ça va comment ak Bayern rek. d' accord yow la ñuy déglu tur bi naka la. Mohamed Lamine Ba maa ngi woote Saint-Louis. d' accord Mohamed. Mhm. waaw man nag contrôle à ce que tout le monde passe man jàpp naa ne match bi dina doon match bu serré et puis un la gis et puis prolongation Bayern va passer au coup de prolongation. un un prolongation après Bayern Jan. waaw ok loolu laa gis. d'accord d'accord. merci. merci beaucoup. Je ne ak keneen. match bi du serré noonu. Bayern day dóor largement. en tout cas na fi. jëlal. Allô. Allô. allo dégg-dégg bi neex donc je crois que comme sànq li nga doon wax noonu ki nga xamante ni nii moom mooy FC Barcelone seen euh, euh, seen cycle dafa jeex bokkul ak Lyon donc Barça euh, allo. allo oui. allo oui. allo. allo oui sëñ bi ñu ngi lay dégg tur bi naka la ak fooy wootee. man maa ngi wootee Camarin yëmbal. d' accord. Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye la Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye d'accord Mamadou da nga bëggoon joxe sa pronostic ci matchu Bayern bi ak Lyon. Bayern Lyon waaw mais yow war ngeen ma xàmmee mus naa leen fi jox pronostic bu Liverpool Atlético ah. ah mus nga <laughs> d'accord. <laughs> ma ne leen Atlético day wàccee Liverpool. da koy wàcce d'accord. naa leen ko fee wax mhm. waaw Bayern ak Lyon bi. waaw. Bayern mooy dóor. ñaata. Eh, man lay japp na ne eh, match bi 3 eh, bi 1 lay do incha 3 1 pour pour pour Bayern. pour Bayern waaw. d'accord accord. waaw. d' ok pour Bayern merci. beaucoup pour Bayern. d'accord merci Mamadou. ok ya pas de problème. ok merci. jërëjëf. Euh, mi ngi noonu mën ngeen woote 78 74 72 ngeen joxe seen pronostic. Mhm. Euh, di leen rappeler aussi que nous sommes accompagnés par euh, Canal Plus Sénégal Canal jamono gi mi ngi en promo ba le 31 août le décodeur est à 1000 francs bo len ko jëndee ngeen abonné wu man ngeen am chaîne sport yëpp ngir rab len leen rëcc ci liggéey émission bi allo. ça va. man la Badou

Bon, minnu ma fɛn kɛ, mais den dɔ den dɔ fɛn au moins. Yaw jis <laughs> É. yaw Baduke eh. Baduke yo doni wax score bi kese. En tout cas, ce qui est sûr mooy 5-0 não vai le ne va pas marquer. o Lyon ne va pas d'accord. Loolu moom leen na sax Lyon du marqué. D'accord. Lyon du marqué 5 OK. D'accord. Jaajëf Baduke. Merci beaucoup. Keneen jóg. Nag mooy tudd di Garcia en tout cas de. mais euh, gisuma luy tax ñu war a mën a dugal sax tey. allo. allo. allo oui. waaw ça va. ça va bien merci tur bi naka la ak fooy woote. maa tey maa ngi tudd Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. Mhm. malheureusement on l'a perdu. d'accord bul fàtte ni match bi passé benn but bi contre son camp la donc Barcelone benn but donc la jotoon dugal. waaw mais benn but bi mooy lool. mais lu mu lay wax sànq rek Barça Sig ak lion du benn. Lyon y' a y' a dama lay jox benn fait marquant allo. waaw yëpp. allo allo yëpp naka nga. ñu ngi sant kooku. kooku may mu borom baat bi rek. yëpp naka. borom yëpp. yëpp ah yëpp yëpp. <laughs> ñu ngi lay ziar. na fi ziar naa la. gis nga sociologue sociologue respecté internet yi. <laughs> baax na. loolu tax nga ne ma respecté yaay bàyyi ma dama lay bi canal ngay seetaanee wala. canal. Mm. match yi da ay caaxaan la rek man bu baax saa toogee pare non canal eh. loolu plus Sénégal instant yi dañoo nekk en promo yëg nga ko. canal plus canal plus. waaw baax na xaaral ma dem may leen ko c'est que français lañ dama bëgguma tubaab. non il faut nga dem canal parce que décodeur bu doon jar dix mille léegi di jar francs il faut nga wax ci loolu. waa dara yéen a tax léegi dinaa leen ko dinaa leen ko istat yoon quoi jaay pitam fa. voilà defaral ñu loolu yow. sama njëriñ laa ko wax parce que yéen ku leen sponsorisé rek man lay sponsorisé. gis nga loolu macha allah. Oh, oh, waaw kon jeex na léegi pronostic bu baax bi laa leen di jox mais bal bii teg nii laa bëgg kon bëgguma mayoo. Ah, bal bi nga bëgg quoi. kese bëgguma mayoo <laughs> alawel waaw yaay témoin de ah waaw jaxal jaxal kii bi rek score bu baax bi rek score démb bi mooy ñëwaat tey 3-0 la pour Bayern 3-0 ah, pour Bayern d'accord ah, waa léegi bal bi ngeen al mu ko nank mooy petit grand sama gaale ko sa confinement daaw amul ben problème yow 3-0 yi nee na rang ñu rang la ballon bi <laughs> oh, waaw kon jeex na na yow avec canal plus ak waaw kon jeex na gis nga le foot ne s'arrête jamais merci beaucoup <laughs> ok merci mm -hmm. On enchaîne avec un autre. Allô Oui Allô oui. Allô Ça va Ça va bien, merci. Madame. Il vous est beaucoup. bu baax à la ak C'est Serigne Serigne d'accord Serigne. fan nga ñuy woowee. Kolda. Kolda. hmm Mungo. da ngay pronostic ci match bi. yow la déglu. ah 4-0 la gisoon 4-0 pour Bayern. pour Bayern waouh d'accord mais ndawar dugal lu bari ah serigne sa ah. score sa score bi reena de di 8 8 barça ñoo la titre non dedet ci xam xam la ko tegg hmm. <laughs> waaw waaw ci xam xam ma la ah wax li ah kon baxna 4-0 dal la gis 4-0 <laughs> ah, waaw deng de 4-0 la gis neena dina dina dina match bi jeexé dinañ eh, woté wat waaw dañuy woté inshallah dañ koy débrief pour pour confirmer la 4-0 inshallah incha allah ok ñëpp ñëpp nekk ci jàmm jërëjëf ok. voilà ñu noté que ni démb euh, gagnant wu mayo bi euh, bokul won ci nga xamanté ñom ñoo woté parce que ñi woté ñep waxu ñu score bi nga xamanté momé match bi 3 0 3 buts à 0 mhm. et que voilà dañoo dem ci commentaire yi pioché fa pour jël kenn ko xamanté trouvé na won score bi mhm. euh pour ñu jox ko mayo bi à la fin de l'émission inshallah dinañ leen wax euh, kan mo gagné mayo bi mais n'empêche ñi nga xamanté ñom ñoo woté ci ñooñu la ñuy jël pour ñi nga xamanté ñom ñoy gagné mayo bi allô Allô Allô oui. oui salam, maaleykum salaam sëñ bi tur bi naka Akibu Sonko. Sonko. Allô Allô oui. d'accord monsieur Sonko la mooy sa pronostic qui match prononce pronostic match bi 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon. oui. Lyon élimine Bayern. 4 Lyon mooy éliminé Bayern 2-1. <laughs> d' accord répétez ma tur bi bu baax au cas où. surprise boobu Akibo Habibou Sonko lii de sur lii Habibou Sonko lii de surprise. dañoo door Juventus door Man City. Eh, ba yenn ñëw door Tottenham door Chelsea door Barcelone. waay Bar Barça cinq cycle la nekk. d' <laughs> accord. Ah, ok mhm. ok. ok merci jaajëf. mën nga ko ne Lyon actuellement mooy bête noire équipe. 3-0 Chelsea. dafa dóor Juventus dóor Manchester City bu Pep Guardiola. waaw yow bàyyi ma. te te te xam nga da dañuy juum ci FC Barcelone ak joueur Lyon yi du ñu benn aussi. Ah. ak système bi bi bi Lyon di jouer du neex a dóor ay huit ak ay cinq dem. de toute façon fee moom comme la ñuy wax <laughs> mbàccum kii la. Hmm, mbàccum gerte la ah mu ngoog. <laughs> parce que Lyon c'est vrai xool xoolal benn fait marquant Tolisso. Mhm. Tolisso c'était le ramasseur contre euh, Bayern en 2010. Mhm. ren moom mooy fait jouer dafay jouer contre club formateur mhm. donc Mingi ngi donc Lyon m'a formé en 2010 moo nekkoon ramasseur bal qui ci stade stade Lyon. Mhm. donc bi Bayern di avec ak euh, euh, ak Lyon. allo ziar naa leen. delloo ziar bu baax. tur bi nag ça va bien. Serigne Thiam Diourbel. Serigne Cham. d'accord. Ah, yeneen ci jàmm. waaye ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah. Mhm. ci koor max bi d' accord ñu ngi lay déglu. Bargny moo koy gagné 4 bi à 0. 4 bi à 0 d' accord. waaw. max bi jeexee dinaa la waat. d' accord amul problème. affaire bi dara. <laughs> jaajëf. déet <laughs> nag gis nga bu marché bi jeexee <laughs> bu hmm. len woote ci numéro bi dé bay len ba suba 16h. inshallah allah bu ñuy ñëw fi plateau je pense que kon nañ ko def débrief rek. Hmm. bu ñuy ñëwaat fi sur le plateau def ko débrief après 4 buts à 0 yi bu dee loolu la tirage au sort lay doon allô Allô, oui. allô oui sëñ bi assalamu alaykum monsieur Touré Italie. Monsieur Touré, depuis Italie, bienvenue dans le plateau de Sport. La mot se pronostic Oui. ah dañuy joxe pronostic pour ñaata bii wala comme mooy gagné wala qu'est-ce que comme ça. Euh, da ngay joxe sa pronostic nga wax équipe bi gagné après nga wax score match bi la ñaata lay doon. ah score maximum moom dana difficile la xam ndax ku dóor Bayern ne 8-0 moom boo doyeeg Lyon mbaa dina neex xam ñaata nga war a def. ba day dépassé dix buts yi waxal rek ñaata lay doon. ah non parce que xam nga saison <laughs> bu toll nii xam nañ ne parce que coupe bi kay la ñuy xalaat la koy nan la koy jëlee kay la ñuy ah, xam nañ ne nag Lyon yi wala Parisien yi moom li ñuy wax euh, français yi sax laay wax kuuku dugg nañu Afrique pour wuti xaw pour coupe def seen dëkk mais dina difficile ah. <laughs> non ah, na am de mën na am comme ñoom kii la. ñu renversé surprise am. lii non ñoom non non ñoom ñoom dugg nañu Afrique bu yàgg moom Allemagne yi gëmuñu xool waaye ñoom France yi moom dugg nañu Afrique bu yàgg pour li jëndi seen i seen i seen i kone. Hmm. d' kon yow jàpp nga ni tey euh, Bayern. waaw ñoom moom. non Bayern da koy dóor moom mën na du de bi mun na bañ a large comme ni ñu foogee comme contre Bayern mii ni ko mais kon Barcelone yooyu mais 2-1 mun na nekk. 3 3 1 mën na nekk mais du nekk score large quoi. d' accord jaajëf monsieur Touré. ok merci beaucoup. Mhm, merci ngi noonu. gis naa ne voilà. salaam. sëñ bi naka mu. alhamdulilah ñu ngi sant. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax tur bi naka la ak fan ngay wootee. Umar Ndongo Parcelles Assainies. Umar Ndongo. Parcelles Assainies waaw d'accord Mor yow la ñuy déglu. Umar Umar pas Mor Umar. ah Umar Ndongo. waaw d'accord Umar. yow la déglu ci match bi. waaw. 3-1 pour Lyon. 3-1 pour Lyon. waaw d'accord Umar loolu de ñu koy enregistré 3-1 pour Lyon. pour Lyon incha d'accord fan nga nar a seetaanee match bi. sama kër fii Parcelles. ah. Parcelles Parcelles. non non ban télé nga koy seetaanee.

maaleykum salaam. soxna si na def. ñu ngi fi sant bu wér alhamdulilah tur bi naka la. Euh, Aliou Fall Paalen Fashion. Aliou Fall depuis fan. Kër depuis Kër Massar d'accord Aliou ci biir émission bi la mooy sa pronostic. tey match bi daal ni ma ko gisee. Bayern hmm. euh, mooy gagné. waaw. 5-0. 5-0. 5-0. Aliou Fall sa score bi réy na de. ah. sa score bi rëy na ah, Bayern noo Bayern noo ay ndaanaan lañ. te boobu bu jàppee du bàyyi te dañoo bëgg bit li ma gën a neex ci Bayern mooy dañoo bëgg bit. waaw Lewandowski moom du rate moom duñ doyal dañoo dañoo dañoo bëgg bit te buñ jàppee buñ jàppee ku weddi laagel Barça Lewandowski du rate de. wa waaw de ba léegi man sama xol baa ngi sedd guy. <laughs> ah yow ay. <laughs> xam nga noo ko mënee xam nga man xam nga man supporteru supporteru Real la les Merengues. cent pour cent yow ya, hmm. kay boo waxul woon sax nand nañ ko fi mu en tout cas <laughs> en tout cas match match bi dina metti de ku yaakaar Bayern ah. Bayern day jaar facilement ci kaw Lyon yaa ngi sa bopp de ah Lyon tànguñu Lyon match bi canal comme ça nga nga Habib Bey commentaire Habib Bey inshallah inshallah la mhm. na fi wax bi mais kontaan nañ ci émission trop macha allah. d' accord jaajëf merci beaucoup. Ah, ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy suivre bu baax a baax Ya ngeen jëf rek ci kaw ci kanam macha allah. merci beaucoup. xam mhm. nga final moom daf lay neex boo koy seetaan nga gis image yu leer naññ. Mhm. HD. voilà. Mm. boo pare nga déglu commentaire bu leer naññ. Mhm. moo tax euh, daw leen canal plus allo. allo. allo oui salaamaaleykum. allo. allo oui sëñ bi ñu ngi. maaleykum tur bi naka la. dafa dem. Mhm, malheureusement ñu xaar keneen allo. allo oui. allo oui salaamaaleykum. allo. sëñ bi ñu ngi lay dégg. Mhm. man leen di nuyuwaay. ñu ngi lay xëbëgee bu baax tur bi naka la. Ah, <laughs> man la Jo. mu ne man Jo.

kii thème bi rek laa ci thème bi tuuti. Uh-huh. waaw waaw man man man moom du ma du ma Lyonnais man Marseillais la. waaw loolu moom leer na. waaye nag moom buñ sañoon moom mu uh, xam nga Lyon. kii mm-hmm. def benn surprise comme ni ko waxee na fi. ndax mm-hmm. màccum gerte la rek. Mm-hmm. <laughs> Ah. mais après euh, c'est euh, xam nga affaire moom Bayern na dafa xaw a kii daal. dafa xaw a diis. dafa neexut ah, pronostic dafa quoi. Mhm. comme comme Lyon dafa créer aussi ils ont créé des surprises donc. Euh, mhm. c'est un peu compliqué à pronostiquer. Mhm. mais après euh, benn pronostic que j'ai en tête benn 3-1 pour le Bayern quoi. 3 buts. 3-1 pour Bayern. Ah, voilà voilà voilà. d'accord merci ok la la <laughs> ok merci allez à bientôt. merci Jo au revoir. merci merci. Mm-hmm. allô allô salam alaikum. salam alaikum ça va. ça va ça va alaikum alaikum tur bi naka laa ah. fan ngay wootee. Mhm. Euh, man la Mouhamed kii lay woote Lyon. Lyon laa dëkk quoi. ah mu ngoog yow kay gis enfin ñu am kenn ku dëkk Lyon ku woote. waaw Lyon laa dëkk. di xaar ku dëkk Bayern. waaw Lyon laa dëkk te fii moom gars yi jàpp confiance. <laughs> dañoo jàpp confiance fii. Euh. Mm. jàpp nañu confiance de. d' accord léegi yow. sama bi 9-2 laa fi dóor incha naka. 9-2. ngay ngay dóor ngay dóor Bayern. 9-2 9-2 laa koy dóor 9-2. nga koy dóor incha allah 9-2. non mais Mohamed loolu moom xam naa PlayStation la. dóor na am jeex. ah. mais grand waaw baax na dina leer grand Bayern nu ma koy dóoree fii rek dañuy xoo ni Ndiaye xamuñu ko mais waa Lyon dañuy xoo ne. Ah, mais 9-2 nga wax de. yow nga ni waa Lyon dañuy xoo incha allah war a bi. dañuy xoo fi am na ay sëriñ ngay ak yow mu mystique dama laaj ko waa City dama laaj ko Juve. Ronaldo Ronaldo kay laaj Ronaldo. ah ouais waaw. ah mais ba pare xool jeexule tamit jël ligue des champions en fait. Hmm. jël ligue des champions. <laughs> incha allah rabi. d' accord d' accord <laughs> ok grand merci beaucoup. merci. <laughs> neuf deux nee na jël ligue des ba pare neuf deux lay dur score bi de maa koy soog a dégg. ñu keneen. Hmm. Aliou. allo yow daam Allô retour bi la. retour bi am problème mhm. allo. d' euh, je pense que nous avons euh, waxtaanee aussi euh, Canal Plus Sénégal ak. Mm -hmm. promo bi nga mon moom la def bi le décodeur est à 1000 francs. Mhm. Euh, fii ba le 31 août euh, décodeur bi 1000 francs lay jar bu ñu demee ba le 1er septembre décodeur bi day delluwaat ci prix initial parce que ko 10 000 francs mhm. ko ba ci li nga 1000 francs mois de septembre day tombé championnat yi di saison mhm. ak déjà championnat France day ñëwaat ak mhm. canal si mode HD donc solo donc mhm. ak ay commentaires yu ay analyses yu am solo aussi genre abi Beye yi donc mhm. analyse yi ñuy def mhm. euh, xam naa ne du ñàkk suñu internet dinañ ko soxla dinañ ko soxla ci match yi voilà décodeur bi à 1000 francs da lay permettre sax yow ci biir kër gi comme que xale góor yëpp a ngi jooy leen seetaanatuñu match ndax novelas décodeur yu 1000 francs lay jot jënd leen ko dugal seen biir néeg yi allo allo allo bi nanga def allo allo wi ñu lay dégg ça va Alhamdulillah. je suis bu a ci baax. Alhamdulillah. ngi de de retour. allo. de retour. Allô? de retour kan moo est de retour non? PMD. ça c'est l'expert le consultant c'est ça. PMD. ça c'est le euh, consultant. non. Hmm? suñu ko wa waaw aspire à devenir consultant. d'accord voilà on est PMD rek. <laughs> Eh, Pape Moustapha Guèye day mel sa analyse bi jaar na yoon de day day mel sa analyse bi reflété na après ci mhm. match bi de. et puis il avait dit 3 buts à 1. Ah, malheureusement. oui hmm. wa dama en fait euh, je m'attendais à je m'attendais à ce que Lyon dugal kii euh, laaj ci dugal ben but mais bon. comme tout le mhm. monde malheureusement niveau bi ils ont réagi très tard. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est vrai que fin de match occasion mm-hmm. euh, le coach a dit changer de système hein, parce que moi... après à toi derrière mais c'était trop tard. mais là, nga 5 3 2. bi Rudi Garcia nara tek contre Bayern te mu marché contre Manchester City ak Juventus wa 5-3-2 <laughs> c'est un système la boo xamante ni ça peut marcher face à des équipes yo xamanteni mhm. amuñu ay ay ay ay latéraux yu apporter ben benn apport offensif mhm. bo xolé Juventus contre Lyon seen seen seen seen latéral yi n'ont pas été très bons offensivement mm-hmm. boo xoolee aussi contre Manchester latéral yi n'ont pas été bons offensivement mm-hmm. alors que côté Bayern ce n'est pas le cas hein. côté Alphonso Davies et Koulibaly ils m'ont ils m'ont apporté leur surnom mm-hmm. je pense que 5 3 2 bon vous permettre de nous parce que buñ am jour bu ñuy marquer mais ça devient 5 3 5 2 pour nous attaquer 5 3 2 pour défendre en fait ouais mais le problème c'est que face au Bayern ils m'ont passé presque tout le temps à défendre hein, c'est sûr non Bayern ils jouent parfois en 4 4 2 parfois en 4 2 4 parce que des fois ils attaque qui est densifier ba nga xamantene ni buñ la contre sa 4 2 4 lañ def waaw waaw gis nga gis nga gis nga 4 2 4 mhm. motax motax man motax man motax man ñaari latéral moy ni buñu buñu apporter ben apport offensif rek da nga am problème parce que dañuy bari ci ci défense hmm té lolu aussi mëna jouer té aussi comme nima ko waxé do comme rek dafa am ben affaire bu am solo ci football ligue des champions buñu jouer moy expérience dem bo xol Jouer expérimenté côté parisien mm-hmm. côté euh, Bayern aussi hein, des Boateng des mm-hmm. des des des des ils sont habitués à ce boîtes, de boîtes, des le jouer finale Lewandowski. Mm-hmm. oui alors que côté y' a am un y' a Memphis qui qui est un joueur bu jouer ci yenn niveau yi. boîtes, fils il n'a jamais joué une demi-finale de champ. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais quand même, il faut nous bailler ben marge. Donc, je me dis que. moment surprise, mon âme aussi, parce que. Euh, lo xamantene ni digul Manchester City digul Juventus bu Cristiano Ronaldo mën na bañ a jig Bayern. non mais c'est xam nga xam nga la may idée que Bayern c'est-à-dire que les lacunes que tu as trouvées lors de la rencontre entre euh, euh, Lyon City wala wala Lyon Juventus lacunes yooyu noonu gisagoo ko ci Bayern ba léegi en fait Bayern de bout en bout c'est bon. Il faut dafa nekk boo xam équipe non seulement collectif bi mais individualité aussi du raté. physiquement aussi. donc euh, day nekk petit poussé un grand favori. D'accord, mais il faut pas oublier aussi que Lyon am na ay joueurs contre Manchester City ils ont fait la différence Et euh, moment bi ñuy def différence kenn xalaatu ko woon ku ci mel ni Dembélé dafa dugg doublé je sais pas ndax expert xam il connaît Dembélé l'attaquant de Lyon. Euh, il est, rentré, il a, il a, marqué un doublé. Voilà. Donc, le mot moom mu Manchester City deuxième mi-temps le dugg. mais mais aussi. mais aussi dañuy dañuy match bi match bi match bi mën naa mhm. Lyon s'il ne réagit pas défensivement de façon très très compacte Nous jouer de façon très compacte et physiquement nous répondre intensité de Bayern Munich di dans le match. -hmm. Ils vont perdre le match à la mi-temps hein. comme Leipzig à Paris. Ok. Les PMD yow la mooy sa pronostic. il y' a aussi boo xamante ni pronostic match bi bon dégg naa fi ay 4-0 maintenant comme damay bañ a mburóole ak gars yi je donné je un but à Lyon 4 buts à 4 mhm. buts à 1 4 ok. merci PMD. Et aussi, il faut, faut surtout faire attention à Oussem Awar. Oussem Awar, il faut, faut faire attention à lui. Il peut faire très mal aussi. D'accord. Merci beaucoup. Allez, On, te, retrouve demain, Inch'Allah. Mm-hmm. D'accord. Euh, nous enchaînons avec Yenen Internaute. Nous avons un euh, pronostic mm-hmm. euh, rapidement par rapport au match. On rappelle que c'est à partir de 19h. 19h euh, lay nek euh, ñuy xam à euh, l'issue de ce match kan mooy nek finaliste bi jàkkaarloog Paris. Allô mhm. Allô, oui sport. Allô, oui c'est bi. oui c'est Dame Jean. ça va alhamdulilah yëkkatil bat bi tuuti. Allô, c'est Dame Jean, comment ça? Dame depuis Kër Massar Dame la je sa pronostic. waaw xam nga à ce stade de la compétition c'est un peu difficile nga joxe score match nag vraiment pour wax dëgg. Hmm. Mhm. lu tax mu difficile non. pourtant ça devait être facile waaw ah, parce que carré basse lañ nekk. dañ oh. hmm. la équipe de xëpp lépp lu ñu am dañ ko ciy ok d'accord. bon bon xoolee ba carré final sax loolu da si feeñ. Hmm. wax dëgg loolu feeñ na si bien vrai que Barça jël na benn claque mais personne n'aurait cru que ça le dina am. Hmm. mais ak demi-finale bi j'en suis sûr que Lyon va jouer tout pour tout. D'accord. Mais néanmoins, je vois que le Bayern va passer, Inch'Allah. Mm -hmm. <laughs> waaw mais pronostic bi mooy joxe moom. Mhm. xam naa du nekk du nekkee du nekkee score fleuve sincèrement parlant. du nekk score fleuve. non non yaakaaruma ko yaakaaruma ko. mais ñaata lay doon noonu à peu près. ah près écart yu un deux bi lay doon sincèrement. waaw mais score bi noonu écart deux un deux bi. Hmm. non dama dama joxe sama jàngat mas pour wax la score exactement. moom expert man j' ai souvent di dugg seen débat bi ci wax. d' moo tax souvent day bëgg décortiquer un peu ce qui s'est passé ci match précédent yi pour mën a exactement le score bi. d' accord yow la ñuy déglu. waaw man victoire bi nag sincèrement parlant Bayern laa koy jox. 3 mm-hmm. buts à 1 pour le Bayern. 3 buts à 1. waaw pour nag espérons que les Français nañ def tout. Mm-hmm. pour mën a pour mën a pour mën a continuer attaque attaque attaque Bayern parce que ouf Armadan la ñu am sincèrement parlant ba Barça xam na ci

Euh, tout le monde savait que Bayern mën na dox c'est Barcelone mais on s'attendait pas à ce que ce score bi tollu foofu tout le monde savait mais que Bayern allait, allait compétition bi nii tout le monde savait que ne Bayern moom mooy favori bi. xam nga FC Barcelone jàmm guddi yi ñu toll mënul mënul Chelsea. ah Bayern dafa laminé Chelsea. Mhm. allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum Salam. maa ngi leen di ziar Ibou Laye depuis Madrid. Euh, Ibra ñu ngi lay ziar bu baax a sant yàlla alhamdulilah. Mhm. naka foofu naka ngay. waaw waaw. waaw. ah ñu fi dëgg yàlla di ko préparé instant yi moom arbitre bi rek moo fi des quoi pare nañ lépp pour toog seetaan ko ñun. Mhm. ban score mooy am. Mhm. Euh, score bi moom wax dëgg yàlla man de si li ma jàpp man gis naa cinq deux. cinq deux. cinq de cinq pour Bayern quoi. Mhm. d' accord waaw gis naa cinq de quoi parce que euh, match bi dina dina bëri bii trop parce que xam nga ak lu Bayern lu mu exploité Barcelone xam nga Barcelone instant bii nii moom moo tax équipe yu bari moo tax moo moo tax daal ruuru Bayern bi yëpp am. Mhm. te ñooy xam naa duñ gaaw a génn seen camp yi kon naan buñ bougé rek bit dina am mais moom xam naa benn bii moom bu xasee ba dugg. Mhm. ah dina ah, dina mel ne bàcc dina mel ne bàccum gerte de man maa la ko wax. dara ko di rafetlu bu baax si émission bi. Mhm. gracias merci beaucoup. Mhm. waaw te sama ko dina la daal. Mhm. ñu enchaîné ak yeneen internet yi ñu joxe seen pronostic. waaw Allô oui. vous na Ah, def. ça va ñu ngi On problème réseau la xam naa. wala waxtaan bi ëpp ko doole. di rappeler que nous sommes accompagnés par Canal Plus Sénégal ak promo jusqu'au 31 août daw leen ngeen euh, bokk ci ñiy jënd décodeur yi à 1000 francs mhm. euh, Balay euh, reprise yu championnat yi ngeen mën ko seetaan ci high qualité allo. allo oui. oui sëñ bi na nga def. oui ça va. ça va alhamdulilah tur bi naka la fan nga ñu woowee. Massé Gueye. allo. Abdoulaye Gueye. Dakar. naka Gueye. allo Abdoulaye Gueye Dakar. Abdoulaye Gueye depuis Dakar d' accord. Abdoulaye Gueye entre Bayern Munich wala Lyon. Euh, ban score nga joxe. no monem ador nador nador itu begitu begitu mom kita halo ablaye jekenen allo allo oui oui seigne bi na nga def xamé wo sa na fi ziar arna delo ziar bu ziar na la delloo naa la ziar bu baax waaye saa. naa la amiin démb. ziar <laughs> saaxo. xol xol xol xol bu metti étoile baa ngi diree ko nii. xol bu métti li ma ci mé ma li ma ci métti xam nga xam nga dëkk bi suñu dëkk bi temps yi dafa tàng. te booy tëdd foo nga bi say fenêtre rek yooyu keroog oto yeeg moto yeeg. parisien yi baaxuñu. <laughs> ah yow tamit nag. victoire boobu rek. président yi daal moom na ne Paris day gagné. benn but bee ko yàqal parce que moom tam bu ma jumul 3 buts à 1 la wax. Mhm. non 3-2 laa waxoon. ah 3-2 nga jox Leipzig sax. <laughs> accord bu tey. non xam nga li tax parce que Paris. Mhm. Paris Paris daa am lu doon ragal ci moom. mais finalement réglé nañ ko mooy. Mm-hmm. Neymar xam nga Neymar day défendre léegi. Mm-hmm. waaw. Neymar day défendre léegi défendre boobu noonu muy def noonu moo baax ci Paris fii ak défendreul moom bu son Paris Paris day am day toujours day am problème. d'accord. mais baax na ci ñoom nañ nañ fexe nag góor góorlu nag jël coupe bi mais yaakaaruma ko. Mm, ñu tax yaakaaroo ko. ah yow tamit na fi. xam nga gars yi ñu wax Bayern naan huit zéro euh, huit zéro euh, huit deux euh, Bayern Barça. Mm-hmm. mais da xam nga gars yi nag dama leen di ñaan yéen ñi nekk ci la kii ngeen di faral di seetaan Ligue des Champions bi yëpp lu am solo la. Mm-hmm. ku seetaan ku seetaan parcours Bayern xam nga ne bu dóoree bu dóoree Barça huit deux warula bett. Mm-hmm. mais Bayern deux. mais dóor na fi fi fi Tottenham ci biir dëkkam 7-0. Mhm. Dorne na fi Chelsea devant supporteram 4-2 comme 4-1. c'est le seul équipe boo xamante ne que mhm. c'est le seul équipe boo xamante ne que ni ci qualification yi 18 points la am. Mhm. match yëpp la gagner te gagner yëpp ay 3 bi trois bi plus lay doon. Mm-hmm. mais final benn match. donc équipe boobu boo toogee waa xaar ma ñëw benn match boobu moo gën a dangereux parce que day xam ni da koy doon mu jàll. Mm-hmm. Bayern na kañ la am defet xam ñu bëri ñu bëri ñu bëri jàppuñu ko décembre la gëj am defet mais Sakho. c'est un grand waaw. Sakho final final beneen match la de. yow euh, ba kii nu mu tudd Alamine dama lay laaj benn te mosuma la ko laaj mais foo ma laaj yow xanaa parisien non du ma parisien sax. <laughs> <laughs> du ma parisien be dama xam ne. Paris yow parisien nga. non non non ah. dama xam ne Paris <laughs> dama xam ne Paris. effort ah. ñu ngi def nii yëpp. pour pour dem ba final. duñ dem ba final di xoole ba bayre di leen di dóor di paan seen kaw ay 5 ak ay 8. dama xam ne lu du demee noonu xam nga xam nga kuy gënt kuy gënt kuy gënt demi pale kuy gënt demi palais nga xëy suba ñu jox la caabi pale boo duggee am na ruq yoo xamante ne doo ko xam. Hmm. Mhm. na. non dama la dama laa nag boo xamee li may wax ma ne kuy gént demi palais. mais nag Bayern nga xëy suba ñu jox la caabi palais. boo duggee Bayern miin na. final dañ leen di dóor rek non ok daan na dem. d' accord d' accord naa daan na dem final mais ak yan équipe. Bayern temps yim daan dem final ci équipe yi mag yi la daan taseetal. waaw ay ñoom Ribéry mm. Robben. Alamine yow parisien nga. yow yow yow parisien nga <laughs> mais Paris du jël état bi de. mais du ma du ma parisien mais. xoolal match tey bi. non parisien ma fi wax ay 5 ay 7 ay 8. mais mel ni Lyon dafay ñëw di ko seetaan Lyon ak Barça du benn de. mais non da koy dóor. waaw mën na ko dóor mais pas du pan ci kawam bu ne c'est impossible. ban dina du xoolal gardien ma di sax mu <laughs> xam nga Lyon non. c'est xam nga li tax mu gaaw dóor bi gaaw ba arbitre di sax teel a teel a teel match bi. waaw de. Hmm. <laughs> parce que dóor bi li tax mu gaaw bañ teel a tas bi parce que mama boobu noonu Messi waxatul woon dara ci terrain tànk yaa ngi lox. xam hmm. nga am na fooy toll yenn bii boo ko jëlee sa yaram bi day lox da ngay mel ni kuy vivre. Mm-hmm. bal boo laal day na day xoolal bal boo laal doo xam sax foo koy du foo koy dóoree. te Lyon na moytu premier mi-temps bi salaamaaleykum maaleykum salaam Bayern dugal ko bu ko dugalee cinq dina ko jël premier mi Mhm. parce que Bayern na équipe la boo xamante ne du la dugal dix dix bopp rek taxaw di xaar. Hmm. Mhm. te Lyon nañu waxante dëgg c'est vrai dóor na City mais City dafa changé dafa changé tactique moo tax mu dóor ko. ak Juve bu ñu fàtte Juve. dafa baax. ah Sakho. ah Juve baaxul waay. Juve Juve Juve man xam nga kan bu ko bu bu bu tase woon kan la kan laa ragaloon bu tase woon ak euh, Bayern mu metti hmm. Atlético Madrid. ok ni ñu waxante dëgg rek yow xam nga match bu baax euh, Lamine. mais Bayern bu tase woon Atlético Madrid tey ji. xam nga li tax ma wax la loolu. Atlético système bi muy joué moom la Lyon di joué actuellement. 5-3-2 boobu. non non non non mais mais yi bokkul ñi ay français la ñu hamburger la ñuy lekk. Atlético dañ leen di jox lu mel ni waay yow yow xoolal alamin yoo foo ma jëlee ci suuf après. <laughs> non gis nga bayaar bayaar naa. jox ay score gis naa score ay 5 2 1 2 gis nga premier mi-temps jox naa la 3 0 deuxième mi-temps ma jox la 6 6 laa lay jox. 6 0 Lyon bu baree ba bari benn lay dugal. Euh, trois 3 après 6 muy 9 wala 6 0. 6 0 lay doon. 6 0 lay doon d'accord euh, Sakho. waaw Alamine mm-hmm. la. mom la Bayern yenoon Barcelone ba léegi fu ne nii dafa tiit il est traumatisé en fait lolo ko dal instant bi. xam naa ne daal. <laughs> Ah. gis nga gis non nañ ñaan ba match bi jeex bu match bi jeexee di nga gis di nga gis lo xamantene da nga naan mais Bayern ni xanaa ay ay machine lañ yore sen biir tànk yi. Uh-huh. jeux yi ñoo bokul machine de guerre franchement parler nañu wante dëgg. Uh-huh. machine de guerre la en plus ñaareel bi moy man dina sétane final bu neex quand même franchement. parce que euh, Bayern Paris mom

imagine toi lundi man ma nekk ci mais attends ça va être compliqué hein. eh. bah. allez du bàyyi gars ñu dugg euh, eh. victoire Bayern. 6-1. Eh. loolu d'accord 6-1 d'accord ok. ok. merci Sakho. gars minimiser Lyon man daf sax man. yow ci yow bëgg minimiser Bayern en fait que Bayern parce que dóor na Barça wér rek day dóor ñenn Lyon 6. mais Bayern tey jii nii bu bu dóorul score boobu noonu supporter Barça ay double double défaite la ñuy amaat tey. Ah. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam naka la. Gàkku Gàkku. Moodu Gàkku yaa ngi woowee fan. maa ngi lay woowee Touba.

Euh, pour match à partir de 19h diggante Bayern ak euh, Lyon. Lyon mhm. bu Alamine. bu <laughs> Alamine Diop. Mhm. non du Lyon bu Alamine sax dama xamné ne Lyon euh, système bi mu joué depuis Ligue des Champions bi di indil ay difficultés ay Juve ak Manchester City est-ce que le Bayern dina ko la a mais ce sont aussi des équipes yo ont dañoo nañ gis ay difficultés. C'est une sen saison c'est une bir championnat. gis tamit itam seen difficulté ci biir Ligue des champions bokkul ak équipe boo xamante moom gisul difficulté dafay dem nii nii nii rek di avancer di dem. en fait coach coach Lyon je crois que dañ ko xaw tamit tamit wuñ ko xel trop. coach coach coach Lyon Garcia donc dafa nekk coach boo xam ne dafa saa yu dajeek équipe bu mag. tey am benn système boo xam ne bu la ko tegalee day fat sa jeu. tey gisuma système bu muy teg teg teg teg teg ba Bayern du dugal. Hmm. gisuma ko. non Bayern moom gisuma Bayern fu muy jaar ba du dugal. Bayern moom day dana dëkk semam boobu naan te milieu bi day yaraax allo. allo oui. ñu ngi fi bu baax sëñ bi. tur bi naka la. Abdoulaye Gueye Touba. Abdoulaye Gueye Touba. d'accord Abdou lan mooy sa pronostic. waaw damaa bëggoon a waaw ci histoire ci match bi laa bëggoon wax Bayern na euh, Lyon bi. waaw yow bi nga xam ne la moom lay teg moom seetlu naa ni baax na waaye maanaam moom dina jël score moom. Hmm, ñaata. waaw dina jël score de cinq wala quatre zéro xam naa ne moom dina yi moom dina man moom xanaa kay mën naa dugal waaye moom. cinq un war naa mën mat moom. waaw kii bi nag baax na li muy teg nag moom tactique bi baax na mais City daa daa juumoon si tactique am Juventus tamit ren baaxul jël na championnat bi waaye ja mérité wu. mérité wu ko. boolu bi waaw waaw ren moom Juventus moom boolewuñ ko si ponkali moom. non ni mu ko jëlee 83 points ñi ñi jël troisième ay quatrième championnat Espagne loolu la na am wala uh-huh. waaw waaw waaw waaye moom li moom day jël moom xam naa ne final bi moom.

d'accord yow la ñuy déglu tur bi naka la ak fan ngay woote. man Ablaye Ndiaye la Touba. Ablaye Ndiaye d'accord Ablaye Ndiaye. waaw waa Touba moom ñëpp Bayern lañ far. waaw. Ablaye yow la ñuy déglu bi. waaw man de sama pronostic euh, Lyon daal Lyon day gañ 2-0. deux enfin am kenn ku faral Lyon sax 2-0. <laughs> Lyon day gañ 2-0 waaw sama pronostic. 2-0 daa tàng <laughs> o de client lañu xubal mom man na tenir bayaram man na tenir ablaye dia day mel fi nga nek ay gu metti ah mat na ñu bet de gaay ngi wérante fi nga nek bet de hmm ah fi la ya bari ni won d'accord baxna légui légui ñu fi nek fofu fan ngeen fan ngeen sétané match bi j'espère que canal ngeen koy sétané wa touba mom fum ne ni wa canal Ah, canal lañ koy seetaan. gars yi seen décodeur bi 1000 euh, francs lay jar wàcc nañ ko ba le 31 août. waaw. ci promotion na gars yi jënd décodeur canal 1000 francs la seetaan match yi ba pare yeneen match yaa ngi ñëw. waaw. mu mhm. euh, rapidement ñu jël quelques internautes rek balaa balaa ñuy boucler émission bi. parce que li mhm. ci des euh, bëreetul pronostic bi ñu rappeler aussi que gagnant démb bi. Euh, on va expliquer un peu gagnant bi démb ni mu demee parce que mhm. euh, ni won ku woté joxe score bu normal bi mhm. genre euh, score exact bi mom mom mom lañuy jox euh, maillot bi mais malheureusement démb ñi woté yépp xaw nañoo laal score bi mais dañoo jël benn but dire que Leipzig et malheureusement Leipzig démb marqué donc score de 3 buts à 0 là on s'est dit nañu piocher ci li nga xam te commentaire yi xool amul kenn ko trouver mhm. et finalement quelqu'un a trouvé 3 buts à 0 Paris moy am 3 Leipzig am 0 moy Moustapha Ndaw euh, je pense que vous pouvez voir euh, commentaires commentaire bobu noonu ñu jël kon ci commentaire yi. exceptionnellement parce que c'est pas euh, newul newul loolu la ñu ci critères yi ñi commenter comme par exemple tay ñi nga xam te ñoom ñoo woote bu dee am na ku ci trouvé ki woote moom mooy moom la ñuy moom la ñuy jël mais bu dee am na itam ñi woote kenn trouvé ko ci comme li ñu daloon démb ci commentaire yi la ñuy jël donc Moustapha Ndaw yow yaa gagné mayo Paris bii nii alamin tàllalal ko mayo bi ñaanj bi saaxoo xaw a mer tuuti <laughs> voilà hein. à récupérer mën nga ñu woo au 78 150 74 72 nga woo ñu wala nga envoyé ñu message comme ça ñu wax la adresse bi nga mën koo ñëw récupérer mi ngi noonu continuer à ngeen joxe seen pronostic ngeen